ah Babacar le grand journaliste xam nga borom journal de l'arène mi ngi noonu ah, Babacar comment tu vas. sant alhamdulilah rahmatullahi. naka mu naka matin bi alhamdulilah. alhamdulilah nooy nuyoo suñu mbokk internet yi. waaw dama leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah rek. Mhm. di leen ñaanal jàmm di ko saako ci ñoom. Mhm. di leen bëgg fu ci waaye mën a nekk rek di leen wax ka ni rek ñu ngi leen di kontaanee. et puis itam di leen bàyyi xel bu baax a baax a mhm. parce que ñoom comme li rek. amuñu seen fay quoi vraiment. dëgg la mi ngi noonu Babacar amuñu seen fay comme tu la si bien di parce que bu du toon ñoom duñ fi taxaw tey di wax. voilà buñ fi taxawee du neex de. du neex de ndax ah. kuy wax ku koy déglu la bëgg. dëgg la waaye ku koy seetaan la bëgg. dëgg mhm. mi ngi noonu Babacar euh, comme ni nga ko waxee rek amaat contentement bu baax a baax retrouver leen fii si seen plateau le journal de l'arène su ko defee sant plus tarder ñu daal di dem seetaan loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi dikkaat ci bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 24 novembre 2021 dañuy ñëw ak in ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey doore kool mu mel ni ki nag yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb daal tey xëta mu njëkk moom la mu xëy gën koo fesal bokk na ci combat bi nga xam ne moo war a am vingt 28 novembre bii nu jëm maanaam dimanche ci arène nationale war a dox ci diggante Zoss ak Alioune Seye numéro 2 bu Guédiawaye mu mel ni nag koo xam ne nii moom ancien lutteur la bëre ba bàyyi bëre di ab technicien boo xam lambe tamit ndax da caa jaar muy zàlloo moo xëy tey di toj combat ba di ko jàngat wala moom muy wax ca sos parce que daa jàpp ne moom bu bëggee dégg-dëgg zaal nee na daal le 28 novembre daal léegi mu ñëw Zoss nag nee na moom fi mu nekk nii daal mënee su koo daal gis waalam daal dafa réer loo ci mën a dégg daal neexu la gis boog wala boog gis ko daal daa xaw a jafe kon waaye maanaam daal jàpp na moom na na boobu combat bu dee favori am na ca moom Zallo ka mu jàppee favori ba du kenn ku dul Alioune Seye de deux diemu ca ne na tamit wàllum kawa moom maanaam mën su ko caa dàq parce que itam ne na mën na caa am nan ko ca xaar ba mel ni kii nag moom kaw booba buy am wala fa muy amee kenn koo xam ne nii daal moom mooy vice président wu écrit doo dóoraat ba sos nekk ñu naan ko Cheikh Thiam xëy na wax ca bu fekkente ne daan day am wala kaw di am ne na ka koy def du kenn ku dul zos parce que nag moom ah, daal la mu jàpp mooy sos day daan ka nga xam ne nii moom moo di Alioune Seye numéro 2 parce que daa jàpp ne sos li ko war ci combat bi. boo bëggee dégg-dégg daal mu nga ca loolu mooy li nga xam ne nii daal moom la xëy tey wax ko moom vice président écrit ba ñu naan ko ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Thiam keneen koo xam ne nii wala adversaire ba mu war a bëri muy Alioune Seye numéro 2 dimanche prochain moo zos yëgle kaay ba mu ngi nuy xamal ne Alioune Seye numéro 2 ndax nag day maintenir fa mu taxawoon da koy continuer maanaam naaw ga mu doon naaw en vol daal ndax da koy maintenir yëgle kaay moo xëy tey ñëw dina ko wax beneen combat boo xam ne nii moom boobu tamit nanu ko xaar de le 5 décembre lay ñëw waaye yëglekaay bi ne na balaa ñu caa yegg moom boo bëggee dégg-dëgg ñaari mbër yi daal danoon def ab jàkkaarloo boo xam ne soriyante lañ koy tuddee maanaam jàkkaarloo boo xam ne daal boo bëggee dégg-dëgg daal diplex lay doon muy diggante Siteu ak ki nga xam ne moo di Papa Sow moo tax sunu làmb jàpp ne samedi jiinu jëm daal guerre bee moo ba moom day daal di commencé maanaam waxante waat wa ci wàllum kaddu balaa arbitre soufflé bu fekkente ne nag ñaari adversaire yàlla kenn ki day nekk 2S ka ca des nekk ITV ka nga xam ne mooy pare ba di Mamboy Diaw moom nekk ci benn studio wu télé Pape Abdou Fall itam daal di toog këram daal ñu def ko wàllum duplex ku nekk wax nag yëglikaay bi nag nee na promoteur ba lam ca jublu mooy daa bëgg daal maanaam dajale waat leen muy indi ay jafe lay Abdou Fall keneen koo xam ne nii moom xëy na di wax dëkk parcelle ñu naan ko père Sagne moom daal moom mooy président écrit parcelle mbooloo que mu xëy di waxal nag mooy franc mi nga xam ne maanaam dañuy wax naan génne na parcelle mbooloo wala génnu fa moom la mu xam ne daal dana franc bu ko neexee génn waaye nag dana du xalaat mukk ci ñoom ñuy bàyyi franc muy dem noonu maanaam daal dem te dara du ko ci fekk moom la mu gis daal nee na loolu du mën a nekk franc daal moom balaa dem li nga xam ne nii moom la war a def war ko séq ak écrit bi moom dina ko def bu bëggee dem bu dee dem ñor na ko ndax nag jàpp na ne sax licence franc fi mu nekk nii bu bëggee dégg dëgg waa CNC dañ koo nangu teg ci loxo téye ko daal loolu nag du samay wax Père Sagne mais président écrit parcelle mbooloo moo xëy tey di ko wax leneen loo xam ne nii wala ñeneen ñoo xam ne nii moom ay mbër lañu toll ci fanweeri mbër ak juróom maanaam boo bëggee dëgg dëgg moom fi mu nekk nii moom ci wàllum liggéey am nañ ko ndax nag lañ leen doon defloo muy wàllum formation ci garde rapproché daal daa mel ni gars yi réussir nañu mbir ma ba fi mu nekk nii daal boo bëggee dëgg dëgg ñoom fanweeri ak juróom yépp ku ci ne daal tey yor nga la nga xam ne ni daal mooy la lay may nga war liggéey ci wàllum garde rapproché yëglikaay bi moo xëy tey dinu wax mel ni kii noonu Baye ñu xam ko moom mu nekkoon écurie Rock Énergie te tey muy dund États-Unis d'Amérique moom Baye Pël daal xëy na tey di wax yëglikaay bi waal daal wala boog Baye Pël numéro 2 moom moo xëy di wax Baye Pël numéro 2 daal ne na pare na ngir jàmmaarloo ak ña nga xam ne ni daal ñoom ñoo di luur yi loolu mooy ay waxam keneen koo xam ne tamit xëy na tey di wax ci mbirum seen seeba ñu naan ko Massib seen di journaliste boo xam ne ku ne xam na ko mu nekk koo xam ne ku màgg la ci wàllum média te ñëw wax nu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne dañ koy fekki li TV ba Kewel Info ak feneen ak feneen muy combat boo xam ne daal ñu ko bëggoon bari na waaye nag Fallou Ndiaye moo ko mujj a taxawal muy diggante buusita ak Laurent njaago bu jàmm gën mu mel ni ki nag ñoom ñaar daal démb lañu ñu fësal seen combat mu mel ni ki daal kon bu bëggee dégg dëgg diggante Laurent Ndiago ak buusita taxaw na waaye li am ba des daal jàppal lii ma lay wax léegi commencé à partir de vendredi ak dimanche ji nu jëm ba ba weer wii dee ba janvier abib boo bëggee dégg dëgg di nga seetaan lamb ba doyal te combat ya ngay gis ay combat yu nar a neex lay doon ndax nag Forza Pakala Jos Aline Seyde ñu ne dé ne waay caat Daouda Fall Kaaw Gourdin bët set ñu andil la booy ki nga xam ne mooy Siteu Papa Sow ñu continuer ki nga xam ne moom moo di Mama Lamine Gargade ñu ngi koy wax buñ ca jógee continuer jéem ci la nga xam ne moo di ka nga xam ne moo di ah tafaatin ak ki nga xam ne nii moo di Boy Niang te itam Balla gay numéro 2 ak Bombardier mu ngi ca roq ba kon daal boo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii làmb ji moom sàjj na ñun nag li ñuy ñaan mooy réew mi yàlla na continuer am jàmm rek ba nga xam ne sàjj googu làmb ji sàjj moom day gën a continuer ndax nag Sénégal moom jàmm ko jig te olof sax daa am lu muy faral di lépp. tey loolu Babacar euh, seetaan nañ loolu nga xamante ne mooy yëglekaay yi mais Babacar démb gis naa la ci plateau Senka ah toj nga fi. <laughs> waa démb de yéen a ma invité woon moom. gis nga mais Babacar ça m'a fait énormément plaisir euh, de te voir si beneen angle parce que d'habitude dañuy taxaw ci plateau bi di wax waxi làmb sans pour autant dugg ci nit ki xam mooy kan comme il mm-hmm. réfléchit xam nga <laughs> mais démb euh, j'ai ressenti euh, ouverture d'esprit boobu noonu nga am uh-huh. gis naa beneen phase bu Babacar beneen Babacar laa doon gis koo xamante ne xam nga il parlait de sa vie sa femme nu muy dundee e ça m'a fait énormément plaisir noo dundee plateau bi démb waaw non merci sant yàlla rek xam nga maanaam nit moom mm-hmm. bu fekkente da ngay def dara mm-hmm. li nga war a def mooy ah euh, fexe ba jéem cee nekk quelqu'un maanaam. jéem ci yow boo ci nekk boo ci boo ci toll li ko def nga jéem ko marqué. Mhm. li koy def nag mooy. il fallait que nga mhm. bëgg li ngay def xam ko tamit wala nga jéem ko xam. tey laajte parce que xam-xam du doy loolu xëy na bokk na ci. te xëy na te Babacar si làmb lañ ko muy wax. Mhm. mais bon mën nañ wax si leneen ah ak leneen. parce que defe naa ne man dem naa si ay plateau yoo xam ne sax euh, wax nañ waxtaanee nañ fa leneen loo xam ne bokkul sax ak làmb. def naa euh, Mbayang Thiam 2STV. ñu ngi koy jaar bu baax di ko ñaanal jàmm. Mm. évité na ma si plateau bu mu doon def 2STV damay fàtte di tur plateau bi sax maa ngi jéglu. xanaa kere vraiment. ah bañ fa defee plateau bi ko Sénégal yi seetaan ne amoon nañ satisfaction par rapport ak suñu ay kàddu. loolu nag du xam-xamam. Mm-hmm. mais la rek yàlla mm-hmm. moo lay dimbali. Eh, ngay mën di boo toogee exprimer wu nit ñi di ko mën a dégg. di ko mm-hmm. bàyyi xel. baax baax di leen ci nga xam ne tamit. may souvent di ma woo léegi seen plateau. nga nga boobu tudd seen kàddu mais Babacar da ngaa neex a waxtaanal nag wax dëgg. sa waxtaan daal saf xorom daal. waaw loolu kon yàllaa ko def ah. macha allah am naa yàlla moo def loolu. waaw loolu plaisir la c'est toujours mhm. un immense plaisir de mhm. de partager avec toi. merci beaucoup mi ngi noonu ñu daal di dem ci suñu lamb. Mhm. suñu lamb daal nee nañu Zallo sur le combat du 28 novembre. Zos est imprévisible. Alioune Seyde mhm. est favori. Mhm. Un KO mhm. n'est pas euh, ex exclu. Ouais. Cheikh Thiam kooku di Cheikh Thiam nee na Zoss battre Alioune Seyde. maanaam daal bu ma déggee li nga wax yëpp si français wala si tubaab mooy. Zallo moom ancien lutteur la ñu ngi koy nuyu di ko siyaar dafa bëre ba bàyyi bëre moom tey dafa xëy xëy na ñëw di joxe kàddoom. wala xalaatam ci combat bi. parce que imprévisible ma jumlu mooy ko xam ne gisuñu ko. Ah, mooy Zos. Mhm. waaw wax na dëgg parce que Zos bu dee ci làmb gëj nañ ko ci gis. wax dëgg yàlla gëj na bëri actuellement tamit xamuñ ci yan préparation la nekk ah. Mhm. bu dee dëgg neex yàlla xëy na nag mu ngi préparé wu moom mi te yaakaar na am ndax moom mi dem ba nangu jël combat ça veut dire mu ngi mu ngi maanaam mu ngi préparé wu mu ngi bàyyi boppam xel parce que loolu moo ko jëloo combat. dëgg la ah, Lisa loo wax nag. jar na bàyyi xel Alioune Seye 2 mooy favori effectivement parce que depuis moom Bizos bàyyi moom continué di bëri mhm. yaa ngi dégg continué di bëri ba ci ndam la mujj diggante ak Issa Pouye Euh, Zos nag moo jiitu Alioune Seye 2 ci làmb yaakaar naa wala waaw moo ko ci sax moo ko ci jiitu am tamit moom mooy vice président wu écrit dóor bi Zos ne mhm. moom li mu gëm mooy kawo bi buy am maanaam dóor mu daanu buy am mhm. mbërëm a koy def bu dee bëre daan mooy am mbërëm di Zos moo koy def loolu tamit ah moom xam naa ne moom miti mbërëm mais bu fekkente ne ñu bëri xam ñu tey Zoss ci lu muy préparé wala nu ci lu mu nekk mhm. moom muy vice président wu écrit ba xam ne ci li Zoss ne mhm. parce que Cheikh Thiam man xam naa ko bu baax a baax muy ki nga xam ne ndeysaan ku ku ku service ku baax ñu taalibe nit koo xam ne nii macha allah daal mais loo ci mën a dégg daal. Mhm. Ah, nañu yónni yàgg rek le 28 soreetul quoi. très bientôt novembre. c'est pour très bientôt incha mhm. ah, allah en tout cas ñu ngi koy xaar avec euh, mhm. impatience. mi ngi noonu ñu jàll ci kooku nga xamante ñooñu nga xamante ne mooy Siteu euh, et Papa Sow. face to face en duplex. la guerre des mots ce samedi daa mel ni. <laughs> Ah. du yomb de. waaw foofu la guerre des mots laa gis de. waaw. waaw guerre des mots de sama mooy sànnante ay kàddu. Mhm. waaw sànnante ay kàddu yu saf. yu saf yu saf saf parce que euh, foofu itam mënta yomba parce que li tax mënta yomb mooy combat bu yàgg yoon la. combat mhm. Zoss ak. combat sept du moins ak mhm. Papa Sow combat la bu yàgg bañ ko jàgg boo ko promoteur bi tëggeeg léegi mhm. def naa ne mat na ñaari at mhm. te mënu guñ ko bëri li fi jaar corona bi ak yeneen ndog ndog mais yàlla dogal na ne actuellement insha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla la 5 décembre jot bañ mën ko bëri promoteur bi tàqale ko ñaari mbir ñaari mbir ku ci ne mën a wuti leneen duplex boobu nag defe naa ne nekk lu nga xam ne innovation la rek si làmb parce euh, a te est-ce que su ma juumale est-ce que du Pape Abdou Fall mii moo ko defar ci diggante Gris ak Modou Lo bu fekkente ne war na ko defaat mhm. ci diggante Siteu ak Papa Sow mhm. kon dama naan lu muy tollantiwaat la xam ah. mhm. parce que defe naa ne lu ñu jar a bàyyi xel la te duplex bi comme ni muy demee mooy Siteu day ne këram wala wala mu nekk si benn télé Papa Sow nekk si benn télé promoteur bi xëy na nekk këram parrain bi tamit nekk si benn studio benn télé ci yi ñu def duplex ak ñëpp ko ñaari mbër yi waxante mu nekk lu nar a neex parce que bon combat bi ñëw na te liñ ci bëgg li promoteur bi bëgg mooy mhm. combat bi jaratul pour moom muy dajale ñaari mbëri yi ci même lieu te du bésu lamb ci daa mm-hmm. xam naa ne moo tax mu am initiative boobu bi tamit Pape Abdou Fall nekk nag nga xam ne ah lamb wax dëgg yàlla bay na ci waaram bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. mais c'est à Papa Sow daal xam naa ne mm-hmm. ci lu baax lay doon rahmatullahi xam nga ci moom bu baaxee fu dugal sa loxo est-ce que doo lakk mm, di nga lakk kon moom mooy combat bi mais man nag Babacar face to face bu la mu di sànnante di sànnante ay xeer waaw ñoom defan defante nañ ko ay yoon ah. Ah? defante nañ ko ay yoon ah Babacar nañ ko trois fois wala deux fois suma juumule waaw a ah, xam naa nag bi yoon moo tax mu bëgg a diwaat beneen. dëgg la xam naa bëgg jàmm rek. waaw ah, waaw waaw. dëgg la hmm. macha allah loolu aussi am na solo. am na hmm. solo hmm. am na solo mi ngi ñu daal di jaar ci kooku nga xamante ne mooy Père euh, Sagne. président écurie parcelle mbooloo. hors de question que Franc parte gratuitement. maanaam moom daal euh, parewul pour libérer kooku nga xamante ne mooy Franc sans pour autant. Euh, dara am en retour je ok waaw loolu moom mooy loo xam ne depuis boobu ba day ñu mu ngi fi. Mhm. wax jooju. Mhm. parce que parcel parcelle loolu la dooree làmbam fa lañ ko xamee ñun. Mhm. fa la commencé bëri petit combat ba grand combat ba ne li simple ak yëpp. après nag nit kii day màgg di dem di dem ba benn moment. xëy na mu jàpp ne war na fa jógee dem ci beneen écrit ñu gis ko muy ànd ak ku mel ni moom papa Sow ñoom Modou Lo ñooñu. yaa ngi dégg papa Sow sañ ci écrit bu bees bu ñuy wax jàmbaar wrestling academy Franc di fa entraîner bëgg a toxu dem. xëy na nag ci dem bi ah dafa am ay règles yu nga xam ne moo fi nekk actuellement seen seet ak ko fi boo bëggee dem. il fallait que nga am loo def. maanaam li ngay def su ma jumlee bokk na ci bu fekkente ne at bi nga démissionné bëgg a dem ci beneen écrit moom boo nangoo nga tokk doo ko bëri nga def ko ne balance bu jeexee nga doog a mën a dem mais bu fekkente ne da a am combat ci at boobu di jox écrit bee bu ñu la ko bàyyilu buñ la ko baalul nga day ko joxe xam naa nag loolu moo tax per sañ na ñoom du seen xalaat mukk wala xel di xalaat franc di dem noonu mhm. sans autant maanaam mhm. maanaam mbir yi di tege fi mu war a tege ñoom daal loolu lañ jàpp loolu nag euh, defe naa ne am nañ si droit parce que ñoom ñoo sos seen aigri mbir bi fa la nekkoon di entraîné wu am nañ mm-hmm. droit ne kat ordre maanaam duñ ko maanaam buy dem il faut que mu def li ko texte yi sant mais c'est normal doo defar dara ba mu tegu nekk ci yoon aussi nga bàyyi ko mu dem noonu bien sûr waaw am nañ si droit am nañ si mm-hmm. droit mais nag du tere tamit mm-hmm. ñun en tant que ay nit yu nga xam ne ay personnes lañ si làmb ñoom ñu di ñu bàyyi xel souvent di wax ne kat tamit nañu fexe mu rafet parce que lépp biir parcelle la aigri dóor wala écrit parcelle mbooloo mhm. écrit rock énergie Jean Martin académie ak ko xam-xam bu Birahim Ndiaye ba ci écrit grand ñoom ñëpp benn la ñoo nekk biir parcelle kon defe naa ak lu man a xew rek ñu fexe relation yi gën a rafet c'est important ah, man loolu ci loolu laa leen di woo quoi. c'est ça c'est ça waaw dafa am solo quoi parce que parce que après olof dafa am lu muy faral di lee baramatullaay. Mhm. Mhm. maanaam nee booy xuloo nga xuus. booy juboo da ngay tafasu. dëgg la moo naam booy xuloo bul wax lépp. amal loo réservé. pour ëllëg bu juboo jotee bis boo juboo doo am gàcce. doo am gàcce waaw kon dafa jar a bàyyi xel. ay nit nit tamit bu fekkente ne da nga nekk ak ñoom booy dem. seetal nu mu rafete nga nekk te benn jafe-jafe du am. parce que àddina dafa gudd tànk quoi. dafa mhm. moo tax lépp looy def rek. nay mhm. rafet kon nay rafet. Mhm. mi ngi noonu. <laughs> Babacar mi ngi noonu tey daal daa ni man info bi moom a gën a neex ci journal bi. mooy parce que c'est c'est très intéressant man tout ce qui parle de l'emploi j'aime. parce que sénégalais yi liggéey. waaw liggéey sox sénégalais yi dañoo soxla liggéey. Ah, dañoo soxla liggéey chômage bi bëri na ah. xale mi ngi noonu état bi ñu ngi ñuy seetaan parfois. Mhm. c' est pas évident en fait. Mhm. mais ça est une très bonne nouvelle. Mhm. convention avec la direc la direction de l' emploi. 35 lutteurs recrutés en garde rapprochée. waaw muy lu am solo defe naa loolu démb am na lu ñu ci jotoon junjaa ah, lu ci journal bi di euh, direction de l' emploi loolu mu def ànd ko ak ku ñuy wax Bamba Mboub Bamba Mboub sénégalais la comme ni ma la ko waxee démb bu nekkoon Italie garde rapproché nekkoon fa métier ba mu maîtriser ko am ci xam-xam du doy bi mu ñibbisee Sénégal nag moom mu gis ne mbër yi mhm. xëy na am na ci ñoo xam ne bu ñu bëriwul mhm. du am dara du ñu yóbbu seen kër mhm. ku ci am ci am na ci ñoo xam ne dañuy bëri mais amuñu beneen métier am na ci xam ne nag am nañ métier mais nag mu gis ne kon kon wàllum garde rapproché mu nga xam ne liggéey la te ku koy def dañ lay fay mu ne kon nañu mu lëkkaloo ci ak waa direction de l'emploi ak état du Sénégal ngir defal mbëri ay formation maanaam di leen di leen di leen tàggat ci wàllum garde rapproché dañ lay tàggat tant de mois wala tant de nangam ba sa euh, ba ba jàpp na yow kon ñi la doon tàggat mhm. jàpp nañ ne yow mi maîtrise nga li ñu la doon tàggat wala sa diplôme kii nañu jox la sa diplôme bi mhm. lay wan ne yow mi léegi am nga droit liggéey wàllum garde rapproché foo dem boo ko fa tàllalee ku ko bëgg ku bëgg garde rapproché mën na la woo gis na ne yow kat lii def nga ko ba am sa attestation wala sa diplôme bi lay may nga def ko muy loo xam ne comme ni ñu ko waxee lu jar a la mm-hmm. parce tamit bon am ne loolu muy état du Sénégal muy yow Ramatoulaye muy man ku mu mën a doon rek ku ci ne war nga ciy bàyyi xel quoi parce mooy tax réew mi mën a avancer parce que bu ku ne amee ci loo jàpp jot du bëri waxante lu ñaaw du bëri parce boo xëyee ne ci sa liggéey est-ce que di tal leneen waaw kon nañu fexe ba euh, jeunes yi ñu fexe gën leen a may doole gën leen a jàppale mm-hmm. moo xam lii ma Mbuub def ci côté mbëri yi mm-hmm. tey pourquoi marchand ambulant yi nga xam mag ni di jaar waa Petersen sama mbokk yi ak ñaari Colobane nag mm-hmm. Sandaga Géejawaay ak parcelle fu marché ne ci Sénégal ñu fexe ñooñu nga xam ne dañu nekk ñu nga xam ne dañuy liggéey ci wàllum euh, jënd ak jaay ñu jàppale leen mhm. waaw commerce boo xam ne commerce bu ndaw la ñun te jëm leen a encadré mhm. menuisier bi noonu menuisier métallique bi comme ci mën a doon ak ci looy liggéey rek ñu mhm. fekk si la sa jéem la jàppale parce que di nga romb benn taabal buy jaay ay morceau cent franc wala morceau de cent te taabal boobu kër la yor dundal ay nit yaa ngi dégg kon ñooñu dañuy jar a suuraale. waaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. wallaay Babacar am na solo li nga wax am na solo lool instant yi xam naa internet yi dinañ kontaan si sa wax ji parce que li ngay wax nii. Mhm. ñu bëri ñu ngi koy dund. Mhm. mais peut-être amuñu possibilité. Euh, wax ko amuñu fi ñu taxaw wax ko mais moo taxit nit ki mhm. boo occuper certaines places mhm. il faut que ci sois la voix du peuple il faut que nga mën leen jàppale di wax seeni place di prononcer wu et tout mhm. am na ñoo xamante ne ñoo ngi bëgg a wax mais amuñu fu ñu taxaw wax amuñu fu ñu taxaw jooy seen problème genre yi nii c'est intéressant mi ngi loon Babacar tey daal loolu lañu indi loon euh, suñu mbokk internet yi ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom waa tàggatoo bi daal mooy santaat leen rek comme ni ma ko ubbee woon ah, leen jàmm xam nga parce que tamit àddina moom comme li may wax rek ñun ñëpp on est ensemble ñun ñëpp ñoo far mais encore une fois comme loolu nga wax noonu dañ ciy insisté waat rek te mhm. nit ki dina bëgg wax te du am fu mu waxee wala mhm. lu gis fu mu waxee mhm. kon nag ñun ñi nga xam ne yàlla dim nattu nañu ñuy wax wala yàlla dim li ñu ñuy wax ñu am au moins ñu ñuy bàyyi xel ah ñuy gën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi rek ñu gën a bàyyi xel seen réew mi nga xam ne dañ ko laaj ban dénk leen ko ñu fexe ba li nga xam ne nii mooy tax réew mu jëm ci kanam saa bu ñu xëyee di ca nekk parce que loolu moo gën yeneen yoo xam ne nag dañ koy gis muy am yooyu soxlawuñ ko yaa ngi dégg encore du fois dama koy wax ne nguur africain ni mu koy jariñoo baaxul parce que da koy def lu nga xam ne nii benn day dem ba def ko sax arma te loolu amul njariñ yow boo laajib réew bañ dénk le pour nga jiite doxalal pour que réew mi ku nekk gis ci njariñam ku ne gis ci boppam mm-hmm. secteur yëpp ku nekk gis ci boppam ñëpp gis ci seen bopp loolu la ñuy sant loolu la ñuy wax ñëpp di ko wax suñu bopp di wax ñi ñu jiite parce que encore une fois mhm. président Macky Sall nag bu ñu ko waxee moom mooy fi teg opposant yi tamit ëllëg parce que Macky Sall du fi ne éternellement après keneen dina ko remplacer ko këy ñëw tamit na ci bàyyi xel yaa ngi dégg mm-hmm. encore une fois ñu bañ def pal gi daal yëfi buur mm-hmm. kum ci mën a doon waaw ah, maanaam bu la Sénégal yi soxlaa mm. nañ la war a gis loolu moom dañ ko siy dolliwaat di la kontaane di kontaane ñi ñuy yëpp di la ñaanal jàmm encore une fois comme li ma waxoon démb rek laay waxaat xale bi nga xam ne macha allah man bon euh, du am na loo xam ne bu ma koy apprécier sax du ma ko tay parce que yàlla ma war na loolu. moo tax ba nga xam ne encore une fois maa ngi lay wax ne voix bi nga aw yàlla na la yàlla sàmm te aar la ah. parce que dañuy gis yow yar gis yow jàmm ouverture te loolu dafa am solo loolu day dimbali parce que nit ki dinañ ne buñ la nee yaru na mhm. da am yar muy dëgg mhm. am nga gàllaaj mais da ngaa muy dëgg mhm. ah utal la gàllaaj dina jafe te man gis naa ci yow wax dëgg yàlla yar ak dal ak ouverture bu am solo yàlla na la yàlla aar te sàmm la kontaan ci yow bu baax la Babacar amaat contentement bu baax a baax partagé yow plateau bi mais dinaa appuyer ci benn point balaa ñoo jàll Euh, chef détail il faut ñu xam ne aussi Sénégal ne se limite pas à Dakar région yaa ngi fi nañuy gëstu bu baax a baax ñi nekk ci région yi. xale yi nekk ci xale yi nekk ci région yi sonn nañu. Mhm. parfois tu es tellement à l'aise euh, dans ta vie. que dangay xalaat ni ku nekk noonu la noonu lay dundee mm-hmm. alors ko boo gëstoo bu baax a baax boo demee ci région ba dugg ci village yi Babacar mm-hmm. am na ñoo xam ni xamuñu tëdd ci matelas tëdd ci bassin lañ xam am na ñoo xam ni xamuñu tëdd ci bassin tëdd ci suuf lañ xam mm-hmm. am na ñoo xam ni dem nañ ba dañuy partager seen chambre ak seeni parent lenn moo leen di traversé mooy benn rideau moo leen di séparé mooy benn rideau rideau boo xamante ne parents yi dañuy tëdd à côté doom yi tëdd à côté xam nga loolu bu xasee ba am rek mooy problème am na mhm. jafe-jafe am na mhm. am na ñoo xamante ne buñ dëkkee duñ reer bu ñu añee duñu duñu reer mhm. donc euh, metti na trop loolu ñu ngi koy ñaawlu metti na trop ba fi metti ya waaye nag yàlla aussi parfois moo lay teg yenn nattu yi xool noo koy supporter noo koy accepter noo koy gérer ba benn jour rek mu defal la xewal doo sax comprendre mi ngi noonu kon nañ ci bàyyi